julli dafa am na mu sant xaalis dafa am aw sant nee nu amee sant la wax ameew sant julli amee kaw sant xaalis amee kaw sant julli wax mi ngi sant ca waxtu wa julli mu ngi sant ca waxtu wa xaalis mi ngi sant konte defe naa déggu li ma wax daal dafa am na mu sant xaalis dafa am aw sant nii nu amee sant la wax amew sant julli amee kaw sant xaalis amee kaw sant julli ah, wax mi ngi sant ca waxtu wa julli mu ngi sant ca waxtu wa xaalis mi ngi sant konte defe naa déggu leen li ma wax daal